remercier rek mboolem seen sénégalais rawatina militants yi sympathisants yi ci seen taxawaay suñu wet ndax jamono ji ñu tollu kenn umpulewul ni jafe na ci ñun ndax euh, ay semaine yi semaine ngi ni ay fani fani ngi ni ñu daal di ay alkaati nguuru Macky Sall yónni ay alkaati ñu barikade sama koñ yépp rawatina sama kër maag sama njaboot ba kenn mënul dem kenn mënul dikk ñu dund tabaski bi ci noonu yàlla def suñu anniversaire ñëw ci noonu waaye sénégalais yi am ci taxawaay boo xam ne wéetuñu benn ñu leen dellu di leen gërëm di ñaan yàlla may ñu fekke ko ay déwéni déwéni déwén mbokk yi ni ma leen ko waxee jamono ji may waxtaan ak yéen bi ñu nekk daanaka lu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 samay conviction xeex bi nag jamono ju nekk li mu méngool jamono ju nekk dina am li mu méngool ndax ñoom seen plan mooy gannaaw buñ mu tegaloo nañu gaawantu ci seen dossier bi mujjee génne nga xam ne moo ci gën a ñàkk solo nag daanaka dossier yi ñu musa am ak man ci tribunal yépp benn du ci dëgg ngeen jéggal ma ci kàddu ay fen neen la ay montage yoo xam ne Macky Sall ak nguuram ñoo ko monté rek ngir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 moo tax ñu def lool ñuy wax corruption de la jeunesse ndax dafa di ay délits yu ñàkk fayda yoo xam ne amatul benn dëkk bu bu bu bu bu faydaw tuuti boo xam ne di fa fekk wax ju mel noonu di fa fekk genre délit yu mel noonu ñoom ñu ne ca loolu la ñuy langaam ma xam ne nag ci lañ ma yéegal bii pa la ñuy buñ demee ba teg sa loxo ci man mooy fexe ba sëf ma lu nekk amaana nañ ne terroriste amaana nañ ne MDC la bokk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 lépp lu ñu mën a def pour téye leen ñoom ba duñu mën a def accélérer li ñu bëgg a accélérer duñ ci mën a am li ñu bëgg am ñoom fii rek élection yi lépp lu ñu mën a def rek nañ ko def lu mu jar rek dinañ ko def ba ñoom nit ñu tënk seen loxo ba ñoom lu ñu mën a dérouler seen procédure nañ ko bëgge kon may gën a féddali Sénégalais yi ni xeex moom tant que ñu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 ñoom ak seen état ak seeni renseignements généraux ak seen gendarmerie seen police loolu yëpp boo ko tënkee ak lenn ci seen magistrature nga xam ne da leen dañoo los gombaanu ànd ak ñoom ñooñ ñëpp boo leen dajale dinañ leen woon bu soobee yàlla bu dee fa ñu bëgg jëm lañu jëm ci semaine yi ñu ñëw ci weer yi di ñëw dinañ leen won ni ñoo leen ëpp xel bu soobee yàlla moo tax ma ne ci lii ñuy dëgmal muy élection yi ñu jëm ñoom nañ def tout pour gàllankoor sama candidature man Ousmane Sonko ndax Macky Sall ko waat wax ko ay nit ñoo xam ne ay kilifa lañ ñooñu xibaare ma ko keroog bi mu annoncé barki Demba Ndiaye bi mu annoncé ni moom du nekk la waxtaan ak ñooñu waatal leen ne leen Ousmane Sonko du nekk candidat ndax jàpp na ni ko daal rek maa ko teg jàpp na ni maa ko xañ troisième candidature. jàpp na ni maa maa won se africain yi ak sénégalais yi ak àdduna bi lan mooy xar kanam Macky Sall dëgg dëgg la munul baal te duma ko baal bi abadan moom ak ñi ko wër bis bu ne ñu reñoo ko ba xaaju guddi foofu noonu Mermoz kon waat na ni man duma doon candidat dajale ay magistrat am cour ba conseil constitutionnel ba jox leen digal ba noppi ci loola te buñ ci tollee di ngeen ko gisal seen bopp ndax dinañ ko defee ci anam goo xam ni àdduna yëpp dina xam ni Sénégal ridiculiser nañ ko ci fañey jaar ñoom pour tere ki ñëpp jàpp ni mooy chef de l'opposition pour mu bañ a nekk candidat buñ ci tollee di ngeen ko gisal seen bopp mu téye conseil constitutionnel ci loxoom Daouda Badio wala euh, ngeen jégal ma ci Daouda Badio bi ndax dama amoon collègue bu nekk importe de ba Daouda Badio waaye Badio Camara laa bëgg a mu téye ko ci loxoom waaye yemul ci moom dina am ñooñu nag boñ ci tool dinañu am lu ñu jëfee bu xam ne dina yem Sénégal yëpp waaye yemul ci moom ndax Sénégal justice bi moo tëree noo xam ne nooy gën a yéegee rek mu gën a doy waar nooy gën a yéene rek mu gën a noonu la def ak cour suprême ba lem bëgg foofu dina ko am soo wàccee nag ci juridiction yu ndaw yi bëri na tey ay magistrat yoo xam ne ña ngay bañ ba léegi waaye malheureusement bëri na am na ci tam ñoo xam ne xam na fu ñu mën a jaar ak ñoom li may wax nag tekkiwul ni soo demee fu mel ni cour suprême la fa nekk yépp dafa fa nax déedéet am na fa ay magistrat yu di am na fa ñoo xam ne ñu bañ ba tey waaye euh, euh, Macky teg na fa ay nitam yoo xam ne depuis premier président ba kenn nag kene boo ci tollee di ngeen ko gisal seen bopp ñoom lay sant ne leen dossier bi gaaw gaaw leen defal ma ko dossier bi na ngeen ci àttee nii te lay demee comme nag loolu xam nañ ko te xam ko xam gu wér day jaadu bu dee njiit la te ngeen wóolu ma ba jiital ma ma jëfandikoo sama xel ñoom ñu jëfandikoo seen doole ak seeni magistrat man ma jëfandikoo sama xel xel googu nag moo ma andi ci ma xalaat ci stratégie tax fan yi yëpp depuis bu may nekk Ziguinchor ba ni ma ñëwee Dakar nii daanaka mois de mai mois de juin ba juillet maa ngi xalaat di déglu it militants yi ak sympathisants yi ma dégg lu bare bari bari ñu naan ñun amuñu plan B amuñu plan C amuñu plan Z ñun benn candidat rek lañu am te day jàll par force muy Ousmane Sonko loolu nag dinaa leen bàyyi ngeen continuer di ko wax ndax baax na ci stratégie baax na ci bataille psychologique bi waaye duñ ko jëfee ndax buñ ko jëfee rek sànq projet bi duñ ko jëfee ndax buñ ko jëfee sànq projet bi may fàttali ni projet bi ba ñu dooree politique ba léegi yéen Sénégalais yi projet la wax laa waxtaan ak yéen waxuma ak yéen nit de mosuma leen ne je suis la seule constante ñi ci des ñëpp ay variante lañu mosuma leen ne su man c'est le néant moo tax ñun dañu am amal solo rek mooy nañu jàllale projet bi buñ ko jàllalee ba noppi ñu dajewaat ñun da l'autre côté. xool nu ñuy tojee suñu bopp jël ak nu ñuy defaree réew mi dina am fu ñu toll projet bi day soxla passeur passeur rek lay soxla kon ñun suñu demee dem dem dem dem ba gis ni frontière am na def nañu benn barrière def ci seeni grillage dañuy soxla beneen stratégie boo xam ne pour passage rek la waaye tekkiwul ni projet bi tayle nañ ko wala joxe nañ ko wala saraxe nañ ko déedéet kon projet bi mooy suñuy yitte ñun projet bi faw mu jàll te du jàll deux mille vingt neuf du jàll deux mille trente quatre du jàll du jàll projet bi dañoo bëgg mu jàll ci deux mille vingt quatre bi ci kattanu yàlla ak bëgg-bëgg Sénégal moo tax Ousmane Sonko am na solo lool ci projet bi am ñenn ñi sax dañ naan Sonko mooy projet bi projet bi mooy Sonko waaye projet bi Ousmane Sonko du ci koo xam ne ku indispensable la ba bu fi bu fi ñàkkee rek projet bi taxaw bu loolu amoon rek ma xam ne échoué nañ ndax loolu moo indi échec gu ñu bëree bëree bëri mooy li ñuy tabax yëpp dañ koy tabax ñoom ci seen bopp ñoom ci seen tuur seen tuur seen daraja loolu amoon ci Pastef te yàgg nañ ko wax. yemul ci discours dañ koy jëf ñëpp gis ko munoon nañ ne dañuy nekk candidat par force bu ñu dul candidat lii dina fi am lële dina fi am déedéet dama ni man Ousmane Sonko bu ma mënul nekk candidat danañu fexe ba projet bi jàllale ab wala ay candidat loolu moom mooy suñu bu njëkk ci liggéey boobu nag wala ci xalaat boobu laa jàpp buñ ci tollee ba war a dem uti parrainage buñ ci tollee buñ ma joxee fiche de parrainage mu uti parrainage ñëpp daanaka soxla ma ko ut sax ndax fi ma toog su ma newoon parrainage laa bëgg waa Tamba nañ jóge Tamba ñëw parrainé waa maatam def ko waa Kidira def ko wa Ndak wax ma waa Ndakaaru keneen ñi nga xam ne jege nañu fii waaye buñ ci tollee buñ ñu joxee dinañu dem uti parrainage buñ ñu ko joxul it dinañu libéré même bu ñu ko joxe sax dinañu fexe ba am ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne dañoo ànd ak ñun ñii nekk ci parti bi di membre Pastef yu fës yu ñëpp xam ñii di suñuy allié ñëpp xam leen ci ñoo ànd ñoom ci loyauté ak discipline dinañ ci na ñoo xam ne daañ lañ ne dem leen jëli ay parrainage ay fiche ci biir parti bi ngeen dem uti parrainage wala ngeen déglu ñu waaye noonu it noonu it dinañu seet ci suñuy allié ñi nga xam ne ànd nañu ak ñoom te déclaré wuñu candidature pour demal seen bopp ba fi ñu wax ni te amaana peut-être duñ ko déclaré ba keroog ñu toll ci war a dugg ci parrainage bi ndax ñi ko déclaré te di suñuy allié am na ko defagum te am nañu courtoisie ak yéege gu doy woo nañ ma ci téléphone ne ma ah ñun de dañoo décidé nekk candidat ma ne na loolu lu baax la parce que suñu ànd ci biir Yewwi Askan Wi loolu la ñu waxtaanoon dañuy dem ànd ci élection locale ànd ci élection législative parce que élection yi élection raw gàddu la da ngeen di boole dajale waaye bu ñu eggee élection présidentielle ñu fi nekk ñëpp ay leader lañu ko ci xool boppam ba yaakaar ni bëgg nga ko mën nga ko am nga sañ sañu dem wut sa candidature teewul nag dañuy bàyyi yeewi askan wi mu nekk cadre boo xam ne peut-être bu ñu mutualiser dajale suñuy doole dina gën a yombal supervision élection yi mu am ñoo xam ne ba léegi it décidé wu ñu nekk candidat ñu décidé ànd ak ñun ànd ak man en tant que candidat fas yéene sax taxawal coalition boo xam ne day day doon coalition wu Sonko président ma ne ci ñooñu ci biir ñooñu buñ ci tollee gannaaw ñi ñi nga xam ne ci parti bi la bokk moo xam ñett la doon wala juróom wala fukk nga xam dañ leen naan dem leen uti fiche dañu seet tam ci suñuy allié ñi ñu ànd ak boobu ba léegi ñoo xam ne dañ leen naan yéen it dem leen ngeen jël fiche parrainage muy suñu allié ñu gën a jege ñoo xam ne tey ñu ngi ci benn cadre di jëflante di liggéey ñooñu dañ leen wax ñoom it ñu dem uti seeni fiche de parrainage ñu téye ko ba nga xam ne dinañu am option yu bëri parce que dañuy wax ne jënax boo bëggee mucc jënax bu bëggee mucc day bari baax tubaab ne on ne met pas tous ses œufs doo jël soo amee ay nen doo boole nen yépp ci benn benn benn benn ndax bu pañe bu daanoo rek dootoo dese nen yi da nga leen dugal ci mbuus mi yi nga dugal ci pañe bi li nga dugal leen ci bool bi loolu stratégie boobu lañu bëgg a reproduire mooy dañu fexe ba ñuy jël fiche bari ñu fexe ba ci ñooñu jël fiche mu am ci ñenn ñu am parrainage bu mat bu mucc ayib loolu mooy suñu stratégie buñ leen ko waxee nag bu ñu dem uti bu boobaa bu dee man bàyyi nañ ma ma dem ut sama fiche pare euh, sama parrainage déposé ñoom it dañuy déposé ñi am ci ñoom ñi jot a am ci parrainage ci ñoom bu dee tere nañ ma man bu dee tere nañ ma du tey nañu am nu mu tuuti tuuti tuuti ñaar wala ñett wala ñeent wala juróom ci ñooñu ñuy jàll te loolu bokkul ak ñi nga xam ne suñuy allié lañu suñuy allié lañu peut ñoom teel nañu décret lañuy nekk candidat waaye suñu aree nañu lu mel ni euh, soxna Aïda mbooj ak ñeneen ak ñeneen su may lim dinaa juum nga ne suñu aree nañ te ñëpp xam ko ñu bokk ci yeewi askan bi bu ko defee bu ñu génnee ci mbir mi ba dem conseil constitutionnel ba conseil constitutionnel pare li muy def ci parrainage ci contrôle juridique des dossiers bu ñu génnee ci loolu ba ñu ne ñu am nañu ay candidat ñu seet ndax kenn moo jàll ci ñun wala ñaar wala ñett wala ñeent ba juróom waaye l'essentiel na ñu am ay candidat bëgguma sax ñu am benn candidat ma bëggu ñu am ay candidat bu ñu yàlla may loolu nag ngeen xam ni ñoom seen pexe na sax na bu ma yemoon rek ci man ne man rek may nekk candidat ndax daloon na ñenn ñi 2019 bu ma yemoon ci ne man rek kay nekk candidat bis buñ ma jekkoo rek projet bi yëpp ñàkk candidat boobaa dañuy obligé génn ci projet bi dem seeti feneen fu ñuy jàppale ji waaye bu ñu fexee ba jàllale ay candidature donte jàpp nañu candidature Ousmane Sonko projet bi mucc na ci wàllu candidature te bu muccee ci wàllu candidature mucc ci boppam tax bu soobee yàlla bu ñu amee candidat dem élection gagné au premier tour muy Ousmane Sonko muy beneen candidat buñ ko amee incha rabbi gagné au premier tour kon lii mooy stratégie bi mu des nag bu ñu demee ba jàll ñu ne ah yàlla may nañ ñu am ñaari candidat yàlla may nañ ñu am ñetti candidat yàlla may ñeenti candidat di ma ne naka laay doxalee mbir mi dama waxtaan ak ñi ñu ko seqal ñëpp ñenn ñi waxtaan ak ñoom waxtaan yu xóot ñu ne ma ñun ñëpp doyloo nañ la yow lépp teg nañ ko sa buñ ci tolle foo joxoñ foofu la loo décidé bu dee sa candidature jàll na wax ci jeex na ñun ñëpp dañuy désister ñëw taxaw sa gannaaw ñu dem defi campagne gañe bu dee nag sa candidature jàllul bàyyi nañ la yow nga xool nga seet nooy tànnee ki nga tànn rek ñu xam ni kook la ma leen ci gërëm leen sant ñoom ñëpp ndax loolu confiance la estime la te du lu tuuti ci man ma donc bu ñu yàlla mais ba ñu jàll ba am ay candidat yu jàll ñaari schéma ma mun a am te dinaa jël décision diggante ñaari schéma yooyu te bu ci nekk dinaa def ay vidéo teg ba nga xam ne buñ ci tollee su ma leen ne mooy choix bi rek yéen samay mbokk sénégalais dinañ leen tegal vidéo bi mu leen ko ba yéen ñëpp ngeen xam lan mooy décision bi kon ñaari possibilité moo bi njëkk bi mooy ye ma tànn benn candidat yeneen candidat yëpp désisté ñëw kooku mooy suñu candidat ñu jàppale ko ñëpp taxaw ci gannaawam ñu dem defi campagne campagne bi nag ñu teg ko ci programme bi nga xam ne mooy sama programme yi ma liggéey man ak parti bi ñu ne fii ñu ne bitim réew ñu liggéey ko muy programme Sonko 2024 Sonko président 2024 programme boo xam ne du lu bees ndax mooyoon programme deux mille dix neuf bi dañ ko toggaat rek defaraat ko actualiser ko dugal ci loo xam ne lu koy gën a jëmmal la lu koy gën a taaral ak lu koy gën matale loolu mooy doon programme bi quel que soit le candidat ñu ànd ñëpp bu dee dama ne kii mooy candidat bi ñeneen ñëpp ma ne leen léegi da di teggi seen loxo daal di ñëw jàpp ci gannaaw candidat bi ñu ànd liggéey ñaareelu possibilité bi mooy ma bàyyi ñu am candidat yu bari waaye ci biir candidat yooyu dinaa def sama déclaration wax ci Sénégal yëpp ni kii mooy candidat bi kii lañu war woteel kii mooy candidat bi mooy candidat projet bi moom lañu war a woteel ñeneen ñëpp nag candidat projet bi lañu waaye dañuy ñëw jàpp dooleel candidat bi sans pour autant ñu bàyyi seen candidature di nga ma ne ah loolu est-ce que du andi confusion est-ce que loolu du tax ñëw ñàkk ay voix lu mën a nekk la waaye def nañ fi combinaison yu gën a compliqué yooyu ndax bi ñuy def intercoalition wàllu yeew yi ñëpp jàppoon na ni du jàll parce que day nit nit ñi duñu retrouver wu liste département sangam yeew yi koy jiite ñu dugal ay député wàllu liste département sangam wala moo koy jiite ñu dugal ay député Yewwi ñu ne sax ba nit ñi duñu comprendre ndax suñ ñëwee fekk bulletin Yewwi ak bulletin euh, wàllu te war a voté wàllu foofu et non pas Yewwi dina am ñuy jum toujours dem jëli bulletin Yewwi dugal te lool dañ def ñuy ñàkk ay voix muy dëggit waaye gis nañu yàlla defal ñu sutura ba mu dox kon mën na am ay inconvénients wala ay lu ci nit di ragal waaye mun na am tam avantage avantage bi mooy lan mooy bu ñu amee ñaari candidat wala ñetti candidat wala ñeent Sénégal yëpp xam ni kii mooy candidat principal bi ñeneen ñi nangu ko ñoom it day tax ñu mën a démultiplier suñu campagne fu ñu doon am benn temps d'antenne dinañ fa am ñaari temps d'antenne wala ñett wala ñeent bu boobaa kenn ku ne dina mën a jukki lenn ci programme bi te ñeenti candidat bokk benn programme commun muy programme bi nga xam ne mooy bi ma leen wax sax kon fu ñu doon am benn temps d'antenne dinañ fa am ñetti temps d'antenne wala ñeenti temps d'antenne wala juróomi temps d'antenne gën a mën a waxtaan ak Sénégalais ci li nga xam ne mooy suñu programme te Sénégalais yëpp xam ni programme boobu mooy programme vingt 2024 donte tere nañ ko mu nekk candidat ku déglu programme boobu déglu nga Ousmane Sonko. quel que soit candidat bu ko jukki wax leen kon loolu dafa am solo ñaari option yi moo ci am te bu soobee yàlla buñ ci tollee dinañ leen wax ban mooy suñu décision ci ñaar yooyu quel que soit décision bi ma nag damay ñaan ñépp nangu ko ñépp euh, takk seen ndigg nangu li ñu tey ba pare sóobu ci liggéey bi quelque que soit ku ñu tànn ak ku ñu tànnut ndax projet Pastef bi du projet individuel bu dee man maa mun a renoncer à tout pour projet bi jiital projet bi ba man mu jaral ma man ma bañ a féetale sam bopp ca kanam bañ a def li tubaab di wax égoïsme mooy man rek man rek ba tax mu mun ñoo xañ candidat kon gisuma keneen ku war a xalaatee neneen ak koo munti doon ñun projet bi lañu wax bu tànn jotee dinaa tànn ci anam koo xam ne lenn rek mooy loon sama yitte mooy projet bi xaw ma ci xarit xaw ma ci mbokk xaw ma ci leneen projet bi rek ndax li ñuy sacrifié ci àdduna projet bi moo tax ñu sacrifié te projet bu weesuwul njëriñu sénégalais yi nger jeex ci réew mi sàcc alal réew mi jeex fi alal réew mi ñuy tay tay bitim réew di jël di yóbbu jeex fi ñu moomaat suñu bopp séddale bi ñu def ko ci ñu gën a mandoo ba kenn ku nekk jot wàllam ci réew mi projet bu weesul loolu projet souveraineté la avant tout c'est un projet souverainiste dooga nekk un projet panafricain ñu assumer ko kon jëmm yi amul solo de bu ci kenn jàpp ni à commencer par man mi toll nga ci foo xam ne bu dul yow rek neen la ku xalaatee noonu rek bokkoo ci projet bi donc buñ ci tollee ba ma ne nii laa ko xalaatee ba joxe samay orientation képp ku bokk ci Pastef képp kuy allié képp koo xam ne gis nga sa bopp ci projet bi nangul ni noonu la nga takk sa ndigg ñu jublu ci liggéey bi ndax bu ñu booloo mankoo rek ñi xajuñ si ñoom ah. bésu élection bi bu ñu booloo manko ak candidat bu munti doon man ngemb ko man parti bi ak allié yépp ànd ci bésu élection bi du ma ne 18 heures waaye midi élection bi jeex bu soobee yàlla loolu nag dafa laaj kenn ku ne fàtte sa bopp ndam rek ndax bu ñu demee ba yàlla teg réew mi suñu loxo ba sénégalais ñu ba dénkuñu képp koo xam ne liggéey rek moo la tax a jóg am nga ci sa place ndax état ku xam ni mu toll ak li ci nekk ci responsabilité président premier ministre ministre d'état ministre délégué ministre simple ministre délégué directeur directeur généraux chef d'agence ambassadeur xaw ma lan ak lan la képp koo xam ne am nga compétence te liggéey rek tax la jóg bu ñu yàlla dénkoon réew mi te nga bokkoon ci projet bi di ci liggéey daañu la dénk ne la demal liggéey xool la nag boo liggéeyee te jaaral ko ci yoon ñu ne la jaajëf jox la promotion waaye képp koo xam ne safaan beeko ko taxoon a jóg foog ni la woon mën naa mën naa continuer dama fiy nekkal sama poche dama fiy nekkal ay mbirum caaxaan wala awma compétence bu boobaa it imma duñ la jox wala buñ la joxe ba pare doog a gis si loolu ci yow ñu nangu ko rek jeex tàkk waaye bu ñu yàlla joxe xool ndax nit dinañ la teg ngay liggéey liggéey ba yaay sonn ne mënatuma dama bu ngeen jël ma dem nopp lu ci tuuti ndax liggéeyal sa askan liggéeyal yàlla la warul ànd bëgg-bëgg yu bari ci sa mbiru bopp sa poos ak sa yu demee noonu kon buñ ci tellee ba ñu def décision ne lii la damay ñaan ñëpp mooy na ci ñëpp ànd jàpp waaye buñ ci tollee ba war a jël ba jël décision boobu damay tàllal sama loxo sénégalais yépp nag sama mbokku acteur politique yi nga xam ne dañoo bokk opposition bi di leen tàllal loxo war nañoo dajale suñu doole ba nga xam ne li gars yi doon wax vote utile vote utile élection bi dafa war a gaaw te leer naññ waroon sax lam-laame ndax est-ce gagné nañu premier tour am déet ndax bu ñu ne woon cinquante et un pour cent la ñu am sax ñoom ñu la bañ gi ne demeewul noonu élection bi premier tour la war a jeexee soixante quinze pour cent wala yu mel noonu nga xam ne kenn mënu ko werante te loolu laaj Sénégal yëpp daje xaw ma ñaata candidat am de mën na am ñett lay doon mën na am juróom lay doon comme en deux mille dix neuf mën na am mu nekk dix wala quinze wala vingt wala trente yàlla xam. waaye candidat yi nu ñu bëri bëri bëri lamay ñaan bokk opposition bi yëpp mooy ñu def dajaloo def vote utile su ma opposition bi nag mooy képp koo xam ne teg nga ni fi ñu toll noonu buñ ci tolloo képp koo xam ne nga sa bopp comme opposant ci képp koo xam ne jàpp nga ni opposant nga talal nañ la ñu dajale suñu doole jëlee li lii ndax lii musiba la ci Sénégal xaw ma ci xàjj seen Pastef nag dafa di parti boo xam dañu am culture partage ak culture ànd ak ñi ànd nañu sax ba ànd ak ñoo xam ne ñëpp xalaatoon jàppoon nañu Pastef du ànd ak ñi bu ko defee gars yi gaawantu naan moo fi newoon lii ànd nañu ba ànd ñoo xam ne ba ñuy ànd ak ñoom ñëpp ak ñuy naan yéen a leen di a ngi leen di boot di leen boot ba jox le waaye yéen la ñuy njëkk a mat waaye ñu jàpp ni jamono jooju réew mi loolu la soxla woon réew mi dafa soxla woon ñu dajale taañ ça a été toujours notre logique kon buñ ci tolli lañuy ñaan nit ñi ndax dinaa ko waxaat beaucoup d'humilité nag mais la yàlla def loolu réew mi bu dee ñun ñi bokk opposition yàlla jox na Pastef doole goo xam ne du lu ñuy werante wala ñuy laam-laame loolu nag yàlla koy def du suñu mérite buñ ci amee mérite dix pour cent la quatre vingt dix pour cent yi ndax ñeneen ñi politique yëpp ëpp lu ñu leen ëpp ñu leen alal du dañ leen gën judd du leen ëpp jàng gënuñu leen sonn ci politique waaye yàlla mooy tudd lu ko neex bu loolu amee nag ñu dem ba toll ci réew mi foo xam ne ñun ñëpp jàpp jàpp nañ ni mënatuñu continuer nii virage bi buñ ko ratee defe naa dina métti trop cinquante ans yi di ñëw. daf enjeu yi wër Sénégal ma ne bu ñu tollee ci loolu nag ñëpp dañu war a def preuve patriotisme moo tax ñuy woo ñëpp ñëpp am na ñoo xam ne ñu nga doon ànd ak Macky barki démb ci wàllu politique ñu nekkoon adversaire léeg-léeg mu tàngaan jër waaye bu ñu génnee ci Macky ndax man dama benn adversaire la am ci politique mooy président maki Sall ak nguuram xam nga beneen adversaire keneen ku may boole dafa fekk nga ànd ak président Macky sal ak nguuram waaye ku fa jóge tey tey tey ñëw taxaw samp sa dënn damay opposé mën naa ànd ak yow ñu ànd xeex ndax islam bi ñu ñu ñu bokk ñun nit ànd naag yëfuru Màkka yi xeex yonent bi alayhi salaatu salaam rey ay nit yu bari ci ay saabaam ba mu ko mu tuub te keroog bi mu tuubee li mu andi ci islam ki ñëpp xam nañ ko ñoom walid defe naa moom lañ doon wax sayfullah islam amar na ibn xataab keroog bi mu tuubee la ne man duma bokk ci diine boo xam ne nit ñi dañuy làkkatu ci ay suusol di julli génn leen ngeen julli boobu julli ci kenn ñëmul woon génn juli ci màgg yonent bi doon ñaan naan yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma kenn ci ñaari omar yi ndax jàmbaar la ñu waaye boobu ñoom tuubuñu ñu ngi ànd ak yéefari sonnaloon jullit ñi lool léeg sax ñu ñëw Euh, torturer leen ci ñi seen jaam yi amoon dañu ñu tuuboon di leen torturer di leen def lu ne yonent mënoon na ne si système ba lañu bokk mais dafa ñaan yàlla yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma kenn ci ñaari Omar yi ba keroog Omar bu muy tuub xëy demoon bëgg a faagaagal ay mbokkam yu ñu leen ne tuub nañ mu dem fekkaleen fa dégg leen ñuy jàng alxuraan su ma juumul sóoratu taaxaalawu bi ñuy bi muy déglu ba ba fi ñuy egg faalam annahu laa ilaha illallah mu dégg naa dafa xam daanu noonu la jaare tuub ne tey nag bis ni ki tey tuub naa kenn ku bokk ci diine gi ma bokk dootul nëbbatu di julli génne leen julli fu leen neex ba ma gis kan moo leen laal ci màkka ji kon loolu am na solo kon bu bu dara am rek ñëpp naan ñu woy moo ne woon système bi système bi man mi ko théoriser maa gën a xam lan laa jublu ci système bi ñu naan système bi c'est des règles c'est pas les nit nu mu baax baax baax nga yóbbu ko ci système bu bon te mu nangu système ba day ànd ak système bu baax waaye nit nu mu bon bon bon bon bis bu d'accord ni système bi mu nekkoon baaxul mu ñëw fekk système bu ko gën day baax te léegi nag léeg nag nit ni mu meloon ci ba may nekk ci système bu bon. su doon malgré juboon na foofu bu ñëwee ci système bu baax mooy gën ci ñi fa nekk xayrukum fil islam xayrukum fil jaahiliya defe naa loolu la xadis bu wax ñi gënoon ci bi ngeen nekk ci jaahil bu ngeen tuubee ñooy gën ci moo tax jamono maam ceddo ga ñi gënoon ci ceddo ga bu ñu tuubee ñëw ci ji nekk jullitam ñooy gën ci jullit kon ñun talal nañ suñu loxo ñépp parce que tey Sénégal la ñuy wax waxuñu Ousmane Sonko waxuñu Massamba waxuñu Mademba ñun Sénégal lañuy wax te moom rek lañu am te ku ñu àndal tam ci ngor ci njub ak ci bëgg réew mi wor buy am de du jóge ci ñun doo musa toog ba dégg Pastef wor na loolu amut ñun de lañuy wor waaye ñun duñu waraate parce que suñu deret moo ko mun politique jarul ñu loolu kon ñi ngi woo ñëpp boñ ci tollee ñu taxañ li ñu mën a dajale yépp ci senegal daa di pare ci ñii benn yoon parce que dafa jot lii mooy li mu doon andi ci introduction muy sama premier vidéo di leen gërëm di leen sant ci déglu bi di leen jaajëfal di ñaan yàlla nag lañ ci ragal ba tax ñuy préparer vidéo yëpp yàlla bu mu am ci kàttan yàlla